ñoom màngaak kumba ak soxna Xadi ak ñi mel ni ñoom ñëpp bokki jullit yi bokki taalibe yi masha soxna faama dama na ko léegi ajaratu kaala ji danga doon jëli waaye yow bi nga amee garaatu aj yàgg na ndax ñu ñëpp xam nañ ni gor la julit la ku nangoo liggéey la nit ku baax nit ku bëgg ay bokkam nit ku yaayam gërëm waaye maasa allah sëriñ Omar mi ko dénk gërëm ko moo waral kaalaam gii lu baax lu ne jëf na ko jëf ko ci dëkku sëriñam dëkku magam dëkku sëriñu borom këram muy sëriñ ma di ko sëkk borom yàlla nee na fonkoon ko bàyyi ko xel lool ngir ndey ji ñu bokk waaye ak njàmbaaram daañ ñaanal càmmiñam la maam góor masha allah ak taawum bi ma tudd léegi muy góor nga xam ni wàll wi ñu fétte lépp luñ ci soxla ca kër ga wala taalibe soxla ko lu yomb lay doon kon imaamul akbar bi ci koñ bi délégué de bi masha allah waa koñ bi yéen ñëpp mbooloo mi ci tànt bi ajaratu sëñ alaaji Omar waa kër gi yéen ñëpp sëriñ Mouhamadou Mourtada ngi leen di wax nii asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ baa ngi mi ngi siyaar ñëpp ginnaaw bi ñu jiitalee sant yàlla bu baax julli ci njol makka alayhi salaatu wasalaam di nuyu sëriñ Mbay mi doomu Babacar Mbay jàmbaar ja waaye mu jël ajaratu mi def ko ndey def ko bàjjan tammat Maysa ñu ngi nuyu bu baax sëriñ bi wax ni nuyoo bi mi ngi ciy jiital sant yàlla mi ni may jotaay bii ñu toog julli ci kii ajaratu jóge te mooy yont yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam njol makka mi nga xam ni mooy sangu mindaafol yëpp mooy seen kilifa ñoom ñëpp rasulillah mooy seen imam mooy seen chef mooy seen président te képp ku juddu rek yaa ngi juddu ci leegu yont yàlla Muhammad ñu ngi tëbb ci Cheikh Badde ñu ngi tëbb nag ci faydu sunu sëriñ Cheikh ma Tidiane Sërif radiallahu taala an di ñaanal maam Ahmadou Ndaak Seck min ci boole ak képp ko mu njaboot ak kilifay diine yi ci réew mi ñëpp waye di ñaanal suñu wayjur bi tax ñu bokk ak ajaratu bi muy suñu bajjan di sëriñ ma di ka borom yalla ne sama sëriñ yalla yalla yàlla leeram ci barkem amin sëriñ baa ngi dellu di siar mbollem kuy deglu kaddu gi rek mu ngi lay siar bu baax mu ngi leen di balu ak rawatina julik it gi ñu genn muy tabaski yal yàlla nangu julli gi te yàlla nañ fi yàlla bàyyi ñuy tabaski ay at yu bari ci kanam te yàlla na ko nangu ànd ak mucc ak muccu njaboot gi yal na ànd ak wér ak wéruk njaboot gi yal na yàlla dolli ni jàmm yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli jàmm ci àddina bi wër ngër këpp ginnaaw sunu njaboot a ngi fépp fépp ci àddina bi booy ñaan ñaanal àddina bépp ak mucc yan ko yàlla def amiin sëriñ baa ngi nuyu délégué de quartier bi mi ngi nuyu imaamul akbar bi ci quartier bi mi ngi nuyu notable yi ci quartier bi yépp ak borom kër yi dëkke quartier bi maire bi sax sëriñ baa ngi koy nuyu bàyyiwul kenn ci yéen bis bi nag bisu sant yàlla la rek ndax loo doon ñaan ba yàlla defal ndax loo doon ñaan yàlla yow jaam bi ba yàlla defal la loola loola nga doon ñaan bu la ko yàlla defalee dara waru cee tegu lu dul sant yàlla kon bis bi bisu njukkal yàlla la muy sant yàlla bisu sante yalla la ndax li nga xamni mom la yalla dogal ci bàjjenam bi ajaratu faama yalla ko tu rek moko man te moko dogal ci mom kon lepp dañ koy delawat yalla fa tabarakallahu ñu ngi delu ñaan yàlla yal yalla yàlla boole nangu ñaan ndax ab jaamu yàlla boo defee jaamu gila la yàlla sant ba noppi muy jaamu yàlla gu metti nag aj lu metti la muy jaamu yàlla gu bari coona aj lu bari coona la waaye bu la yàlla dimbali nga def ko ba matal ko ba noppi ah, yow la nga cay ñaan yow jaam bi yàlla na ko yàlla nangu amiin njool makkaa ngi wax alayhi salaatu wassalaam nee na aj gu yàlla nangu laysa lahu jasaa'un ilal janna loo xam ni boo ko defee bu ko yàlla nangoo dara nekkul pay gi lu dul ajjana war ngeen xam ne loolu rëy na teyit nag ah noflaay du ko joxe nag loola lu màgg lay doon lolou yàlla fonk lay doon kon ñu ngi delu di ci sant yàlla bu baax fa tabarakallahu njool màkkaa ngi wax alayhi salatu wassalam ben bis soxnaam sunu yaay Aïssa daa laajoon Moustapha ni ko ñun jigéen ñi dunoo bëgg bu ngeen génnatee di jihaad fii sabilillahi ak jihaad ni mu méttee waaye doye bi mu am ci lislaam tiyaaba ñi nekk ci jihaad dunoo bëgg ñun jigéen ñi am tiyaaba jooju ba tax na dunoo bëgg ngeen bàyyi ñu ñuy ànd ak yéen njool màkka yaa Aïcha am na lu gën loolu de am na lu ko gën a rafet jihaad te bu ngeen ko defee yéen jigéen ñi man ngeen a am yool boobu ngeen di wut man a am yoolu jihaad te coono bi du leen ci fekk Mustafa ni ay Aïcha mooy aj goo xam ni borom da koo def borom da koo def te boolewu ci ay caaxaan te boolewu ci ay caaxaan boolewu ci lépp loo xam ne boole wu ci dara luy nekk ma yàlla góor góorlu aj aj googu bu ko yàlla nangoo mooy tolloog lii ngeen di wut mooy tolloog lii ngeen di wut ci jihaad ji muy ajjana suñu yaay Aïssa ni man de ba ma déggee loolu ci Sayyidina Muhammad suñu yaay Aïssa mi ngi nettali bi ko yont yàlla Muhammad waxee loolu ba tey booba ba léegi. booba ba léegi. booba laa euh, laxas moom ni at mu jot damay aji. booba laa laxas. jëfal ci taxawaayu démb yi ci sëriñ ma dikkee ak taxawaayu tey ci njabootu sëriñ ma dikkee. fa tabaarakallaahu muy taxawaayu mucc ayib. Baye Omar daal képp ku ko xam. xam nga ni sëñ Omar nitu jàmm la bu lay gis rek di ree. fa tabaarakallaahu nit la ku bëgg lu baax. nit ku bëgg kër Seex ba rawate na nan ah sëriñ Madika Seck sunu sëriñ ak lépp lu aju ci moom fonk daayira yi lool gis ngeen daayira yi rojo yi daayira yi taxawaay bi ci sëñ Omar am ñëpp xam doyo bi bu dee ci daayira yi ni lay taxawe bu ñuy gàmmu mbuur nii la taxawe bu ñuy gàmmu ci Canaba Kayoor wala Canaba Seck nii lay taxawee rawatina nag ci Ibnul Mahayib fa tabaarakallaahu sëñ Omar kon yooyu garaat ci cant yëpp ay jagle lay la yàlla jagleel ay ngëneel yu la yàlla defal la yal nay sa muur te yal na yàlla yàggal sa taxawaay ci njaboot yal na yàlla dolli wér gi yal na yàlla dolli sutura bi ñu ngi lay san ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay bégee ñu ngi lay bàyyi xel di nuyu maamam yaa nogoy taal di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wér yan na yàlla yàggal taxawaayam maam la ju bëgg ay sëtam maam ju bëgg ay mbokkam bëgg magam maam ju bëgg doomam ja sëriñ ma dikka saj boroom yàlla nee na maam ju bëgg ka ko yar di yaayam di soxna coro sek ak lépp lu nu jaboot fa tabarakallahu man mii bu ma gisee li muy waxtaaneeg man ci bokk gi da nga yéemu ci yàlla ni mu amee xam-xamu mbokk gi ak ni mu ko mënee détaillé loolu jagleeg yàlla rek bu ko yàlla defal. loolu bëgg mbokk koy waral. am na loo xam ni. bu la ko yàlla defalee. bëgg mbokk a tax mu defal la ko. kon maam Nogay. ñu ngi koy sant bu baax. du ko jaajëfal bu baax. taxawaay taxawaayi démb ya. taxawaayi tey yi. te lépp bokk rafet. yan na yàlla dolli ko fee bàyyi dolli ko wér. ñu ngi nuyu ku mel moom mook Baye Omar ñoo bokk ak Baye Góora ak Baye Momadou Sougou mi mag ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di siyaara di leen jox seen wàcc di leen ñaanal yàlla di nuyu bàjjanam soxna mànga sëriñ baa ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaay bi mu am ci kër gi di rafetlu ay tax yu baax ak bàjjanam soxna Mati Guèye boroom kër mbay siini ñu ngi koy nuyu bu baax borom bu di ko bàjjanam ñang fa tekkere moo bàjjanam soxna Kumba Guèye mii jox leen wàccuwaay bi leen yàlla jox mi ngi nuyu bàjjat di ko siyaar bu baax jox wàccuwaayam bi maam barakallahu mi ngi nuyu moom nag ñii ma lim di leen waxi bàjjan yëpp ñoo ko ma dikkee bokk yaay kon barakallahu càmmeñ la nak serigne ma dikkee bëggoon sen yaay ja ya cioro sek waye beug njabotu ma dikkee sen njabotu fu nu dajje ak ñom da ngay yëg ci ñoom moo sama jarbaat bi ma dikkee woy juróom ak baay muy ajaratu bi sunu ajaratu ko xalifa njaay nit dina baax baax goo xam ni nit dina liggéey liggéey boo xam ni liggéeyam ak mbaaxam fa tabaar mën na ko may tiyaabay aj makka yu baax yi ma taqeeb nañ ñu koy def ku mënta dem makka loo mën a def ci lu baax ci jaami yàlla yi waaye dee ko def loola mën na la may yoolub aj makka sunu bàjjen bi nag fa indi baax googu mu si jóg mooy taxawaayam ci ay mbokkam mooy taxawaayam ci ay waajuram mooy. mooy taxawaayam ci ay magam. mooy taxawaayam ci ak njabootam. mooy taxawaayam ci sëriñ ma saj may sa mbay mii ak seen baay bu baax ba Babacar xam ni kon liñ koy ñaanal yal na yàlla ràppal kaala gi lépp loo ñaan makka yan yàlla dolli wér fa tabaarakallaahu lépp loo xam ne day daan koy laaj moo xam sukkaru moo xam la ak ci gàmm gi moo xam cotisation yi tabaarakallaahu bu ko xase yëg moom ajaaratu dina njabootu boppam sëñ góoraa nga fa tabaarakallaahu te ñoom njabootam gi yar na leen ba neex na noo soññee ci lu baax lool li seen kilifa yi bëgg ñoom moom la ñu bëgg ndax loolu la ñu xam ñoom it luñ ca man taxawee ko seen suukaru koor du seen cotisation yi daayira du tardé seeni teraanga du tardé ci kër ga lepp lu jot sa bàjjan dina ma wo ni ma nang nangam fa bok bokk di mang len di sédel lolou mu ñeewantanu lol bayi ñu xel lol mom ak ñum ko bokal ñom ñep ño bok taxaway bi da fekk ni mom mo dem ba ñew waaye jukko yi nii seede ci moom moom ak ñi mu bokkal yooyu jukko nekk ci ñoom ñoom it leen yàlla dimbali wéral leen bañ leen di teeroo nii yàlla mën na ko sama yaay ñoom ak sama tànta Xadi ak xale ya ñëppay ñëpp dina bokk ci kër gi am ñu fa jóge màkk ñu séddaleet njaboot ma ne leen Abdourahman yéen da ngeen di toog su ko defee man ma demal leen ci bàjjan faama yéen ngeen demal ma Kébémer ndax itte yi bu dajee kenn ku nekk day am ci lu mu jàpp kon loolu moo tax ñi ñëwul ñëwagunu doonte ñu ngi ci yoon sama yaay ñoom ak sama tante Khady Fall tabarakallah ñu ngi yónnee seeni nuyoo ñu ngi yónnee seeni ñëpp a ngi lay fataba nanu bu baax ñu ngi ñaan lii yal na ko fi dem Makka njaboot gi fa tabarakallahu tey fa la ñuy yenn tey fa la ñuy yenn moom day xaritu sëñ moom la ñuy di daje ñoo fa daan bokk di daje ba daaw ñoo fa bokkoon daje waaye ren nii la ko yàlla dogale moom it mi ngi yónnee siyaaram ak i ñaanam ak i jaajafam ak i kontaanteem bi ñuy ñëw dañ bu ngeen demee na ngeen ma teewaaleel ndax gis ngeen di mu demee ma ne ko loolu bu demee rek mel na ni dem nga fa tabaarakallaahu kon góor a sugu rakk yi Pape Sugu Modou Sugu soxna Mbeen sëriñ ma dikkee sunu maam Coro ak njaboot gi yëpp Babacar Canada yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu góor a di ko jaaral ci yow leen siyaare ndax yaay seen kilifa kat yaay seen catal xeej te jam nga yànn ñëpp jam kon góor a li lay ñaanal nga ñaanal say rak di ko ñaanal say rak yal na yàlla musal yal yàlla aar yal yàlla taxaw yal na yàlla lafa leen cat yal yàlla musal leen ci gàllankoor yi yooyu bu amee bu neexee léppay baax maanaam xale. bu ko ay kilifaam gërëmee. fa tabaarakallaahu mu am jom. nangoo liggéey. xam boppam. fonk diineem. fonk ay mbokkam. fonk ñaar kontaan nañu yal yàlla kontaan fi yàlla dolli jàmm fi yàlla dolli xéwal yal ñu ngi leen di jéggulu di leen jéggal yàlla na yàlla boo leen jéggal may mbay jaa jëf may mbay yow may sa yàlla mën na laa dimbali lool nag ndax la sa baay bëggoon sa yaay bëgg ko yaa nga ci may te ñii nga bokkal day naw moo ne gërëm na moom xam ne ni daaw ma gëj ak baayam dama daa yëndoog baayam ko nga sut aw fan te dese barke bi nag yal na ko yàlla def alaaji Pape Dieye bi may ñëw woo naa ko mu ne ma maa ngi nii du fa soog a jóge waxtaan nanu moom it mu sant sëñ jaajëfal ko ci taxawaayam wane xolam bu sedd ci moom ak noppal gi mu ko noppal ak jàppande gi noonu la sant sama bàjjan ndax faam lu mu bëgg rek mu bëgg la ko ak taxaw pas-pas ak njabootam lu ne ci lu rafet Pape Gueye wax na ko xam naa ne xëy na bi mu ñëwee wax na waaye daa bëggaat bu ma ñëwee ma dolli ñëpp xam ni tabaarakallaahu sant na leen gërëm na leen ajëfal na leen boole gi leen yàlla boole sëñ ma di boole leen amoon ci mbégte am ci yaakaar fa tabaarakallah boole gi daal yal na ko yàlla saxal ba iliir yàlla man yal na ko yàlla def maa ngi leen di yëgal nag sama soxna dafa demoon màkk ñëw na démb coon na jàpp ko samedi insha allah lay def ngan rawatina yéen takkatu yonent yi nag ah, masha allah Baye Mouhamadou lii na nga ko fàttali sëñ Mahfouz sëriñ macha allah bis baa ngi noonu yow doo gëj kër ga kontaan nañ ci bu baax macha allah kon nee na mi ngi seede ni lépp li nga wax dëgg la ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam baayam moo ko joxoon baay Alfa Mahmoud joxoñ ne euh, ma mamar baayam la ma tuddee ni ma sëriñ alfa maamadu tànneef la tànneef la loolu la ma sama baay waxoon sama kër gi ci jàmm gën ba ma ko tabaxee ñaari néeg laa fa am ma def fa benn néegu sëngal bàyyi alfa am kum doon seet hôpital Dantec boobu mag Pape Dieye denn kër ci jàmm gën mu ñëw kër ga may ma def samay kii rek na ko sëñ bi li ma bëgg mooy yendu si fi mu ne ma am naa yéene bi de waaye daa am ku ma seeti hôpital kuy seeti nit hôpital doo na mën a digg kendal doo mën a digg kendal waaye boo ma gisee alhamdulilah lépp mën na ko bisimilah génn waxtaan ak samay mbokk yi ma fa am def fi samay teraanga yàlla indi na ci kër ga xéwal gu rëy rëy <laughs> yow moom koy jur sëriñ ma dikkee koor la bisu koor màggal bi waxe ba mu ne ma tegal nii yow loo wax góor gi foo jëm. moo ko bi buntu ginnaaw na ma toogal ma dugg. muy daw daw muy daw daw ma ne ko sëñ bi ñaata mu ne ma yow toogal ba àgg rek mu ne ma foo jëm ma ne ko jàmm gën. oto ba daal pour sëñ bi. oto ba daal neexaay ba rek jar na ma ñëwee jàmm gën. na ko da nga sëñ ma dëkk daawul bàkku de loo ko wax mu jiñ ko yàlla ma tëdd sama kër baara mbay yàlla na ko yàlla yërëm léegi la est-ce mu dikk ne mu dikk ne chef de gare mu ni de gare nee na commissaire nee na ter nee na nga ñëw jël sa place jël si sa place <laughs> ba ma àggee ah, xam nga lan ma wax yow sëñ bi am nga am nga gàllaaj yow sëñ bi am nga gàllaaj wala am nga sëriñ ma ne leen am naa gàllaaj am naa gàllaaj am naa yàlla li la kama ji doon sàcc ga kama ji doon sàcc ga taawam lañ jàpp flagrant délit taawam lañ jàpp flagrant yokk ko ci koso bi yàlla ma na fayul nit yow sëñ sa baay kenn la kooku sëñ bi di ko bokk ci fi nu mooy ñu xam ko bu dëgër jërëjëf Seck jërëjëf Seck Momar jërëjëf yow neex ngaa defal yow ah tey tey wax nga tey moom tey wax nga aja aja ah, ah soxna Khady Cissé nee na Eh, waaye bal rajo bi yaa nee na yow mi yaa baax yaa mën a boot njaboot yaa mën a yar sama doom dafay nekk ah sama pap laa ko liggéeyee ba am te yi mën a wax ak yu mën a wax yëpp xam ne yëpp amin nuyuwaat bu baax di leen siyaara di leen bal wax te di leen baal di ñaan yàlla ñu yàlla boole jéggal eh, noo ngi jiital si nuyoo bi Baye Serigne Thiéne ba Baye Serigne Hassan di ko ñaanal yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi eh, di nuyu imaamu ratib Serigne Cheikhou Amadou Seck chef de village Serigne Alassane bu ko defee rek ñu yóbbaale képp koo xamante ni bi bokk nga ci kër Cheikhou Thiéne ba waaye noonu la ñu nuyoo bépp kilifa diine rawatina les xalif généraux moo xam bu Tiwaawoon moo xam bu Touba moo xam bu Ndiassane moo xam bu eh, Medina Baye wala Léona wala sax fële nga xamante ne moo di kër suñu maam maam Seydina Limaamu Laay ah, bu ko defee rek ñu ngi fii nga xamante ni bi moo di Kër masaar ah, ci ah, nga nele màkk bi nga xamante ni bi sunu waajur wi jóge woon na ko penku fële ca màkk muy sunu yaay soxna Fama Gueye don ko xamanteni ni bi ren dafa siaré wu ji won yonente bi sallallahu alayhi wasallam tay nak ni ñi yendo won di ko ci manam tay nekkon bisu nganalé bi nga xamanteni bi yakarna ni euh ñew nañ ba ci cëppaandaw li bëggon rek mom du ñak ay cadeau yo xamanteni bëggon nako rotal mo xam jaajeufal ñi nga xamanteni bi ñom la bokkulon bes bi mo xam sante ak ngeeram ñi nga xamanteni bi ñoo fi ñewon di siar ci waye tam ñi nga xamanteni ni bi ñoo and ko ak mom yëkkati ay teraanga jox ko waye mom itam yakarna ni ku yendu ci kër gi xam ni ay teranga la yendo mo xam ay teranga ay bernde mo xam ay sëricë yoo xamante ne yu am solo la yu mu jox mbok yi fi ñewon te lolu rek moy e, e, teranga nak bu ko defé rek suñu yaay Fama Gueye mom lañu bëgg talal suñu micro e, ginaaw bi mu nuyo ba nopi rek mu andi ay kàddu cant ay kàddu ngërëm dooree ko ci kilifa yi fi ñew yëpp waye mbok yi xarit yi ak sopp yi waaye tamit bala ñuy tej nak dinañu ñewal ci ci yoonu màkk wala sax balaay bobu dañ koy laaj ci teunk rek xam nañ ni son sonn nga waye dañu bëggoon ci teunk rek euh, bala ngay ñëw ci cant ak yoy yooyu nga ñëwalaat ñu ci yoonu makk bi biñ la annoncé ni ren da nga wara a ben lan nga yëg ak naka lañ la ko annoncé waye tamit waccay bi fi noko wajé ba nga démé makk aj gi naka la démé bi nga démé ba ñëw ba tegaat su tank ci bi Sénégal lan nga yëg ñetti point yoy lañ bëggoon rek nga ñëwoon ñuko ci teunk inshallah assalamu alaykum Mar lay nuyu man la soxna aja Fama ge maa ngi nuyu di la siyaara bu baax di la ñaanal jàmm di la masawu coono iya yi nga ah, yendoo fii baat bi nag dee na waaye di dinaa jéem a jéem a wax rek ndax baat bi dee na baat bi nanguwul waaye dinaa jéem a wax ndax tey moom bisu mbégte la lu mu metti metti rek dinaa wax waaw. ma ma lay sant sëñ Maar di la gërëm di la ñaanal yàlla te xam ne lii lépp la. ak ak ak ak ak mbëggeel ak ak ak ak boo xam ne am nga ko ci bés bi ma ne ci sant di ci gërëm di ci ñaanal yàlla yokk sa xéewal yokk sa sutura barke sa liggéey ah di kontaan bu baax a baax a baax a baax nag ci annonce biñ ma anoos woon ni ma ah, sama doom ni ma dama la bëgg a yóbbu penku muy góor sugu sama doom waaw waaw ma kontaan ci ba bëgg a dee ndax loolu moom kuñ ko wax ku ki nga and ak mbekté mo xamné ni do doo li nga yegg doo musa yegg ci sa aduna muy ñaanam yaan yàlla yàlla yeggale yene ya ak ndimbal ya ak yaakar ya ba yeggale na ko tey ñu dem ci jàmm ñu ci jàmm fekk fi jamu mu ganale ma ci jàmm wa lepp ci jeex ci jàmm ak salam, yàlla na sedd guy te jig ko te jik ma jik sama njabot gep ak kep ko ma jabote jik sama mbokk ak sama am di jàmm ak sama rakk ak julit maa koy ñaan yàlla di ko ko ñaanal bu baax a baax a baax sugu fara di am mbégte kontaan te lim ma defal yàlla nañ dund ba doomam fay ko ko di fekk te tal ko mboolem jullit waa di ko ñaanal yàlla lafal ko cet yàlla na ko cet seexlu yàlla na yàlla yeggale ko fu mu bëgg a yegg yàlla bu ko dara fakkastal yàlla bu ko dara gaar ci barke yonent bi ma jóge sallallahu alayhi wa sallam ah sëñ maar bi ma demee penko xam naa ni rek yàlla rek kay yàlla. te yàlla rek mooy dëgg mooy tey mooy ëllëg te moo fi ne ba faaw te képp ku dem penku te ñëw te sa jikko sensiwul nga xam ne la nga doon wuti ca yàlla amuloo ko kon yàlla na yàlla gën a defaraat sama jikko yàlla na yàlla gën a defaraat sama melo yàlla na yàlla gën maa teg ci yoonu saraatus mustaqim ma teg ci sama njaboot ci saayir ak ci baatin lu ma fa am lu nekk jaamu ko fa yàlla yàlla na ma ko yàlla fulal barkeelal ma ko ci njaboot gi ak njabootu mboolem jullit nak rawatina senegal yep ndax ben bop la ken munu ko xar ñaar yalla doli fi jamm doli fi xéewal doli fi tawfiq ak ko li depo xalaat yu fau ben yalla nak seytaane dak ba faw faw faw ñu dak ko fi ba faw ci barke yonent bi wa bi ma demee tamit sha allah ba ma ba jakkalok sayyiduna Muhammad yëg sallallahu alayhi yëg naa loo xam ne mosuma koo yëg ci sama àdduna kontaan naa kontaan goo xam ne mënuma koo message ci mbégte ndax ku jàkkaarloog sang ba rek di nga mbég moo xam ne nii sallallahu alayhi wa sallam nga mbég moo xam ne maara deytaale yal na fa jaam ñëpp teew yal na fa ñëpp dem siyaare ji ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa waaw bi ma demee tamit ba dem Màkka maa sàllaa tamit ba janoo Kaaba ga looy làmb di ko tatane ñu naan fii la penk beeg fii la penk bi tey nga dem ba jàkkaarloog moom face à face loolu daray àdduna dàq ko ci mbégte yàlla na ma ko yàlla fulal barkeelal ma ko yàlla na ma ci yàlla defal taw féex yàlla na ma jig-jig sama njaboot kontaan naa kontaan goo xam ne daal am na commencement waaye amul yemukaay yàlla na sama njiglaay di sama muur nag sama muuru njaboot ak jullit yépp wa bi ma e tamit sha allah. wa wa wa ban moma manam ci bir ak. ban moma mo la ci gëna marki wa taxaway Arafat. taxaway Arafat. ku dem taxaway Arafat. di nga xam yalla rek kay deug te buñ la nee yow ma xiyaam am na weddi Arafat di nga yegg lo xam ni ci sa dund te yow melni ni sax ci aduna wa man lool la ma def man te xamna non la def jam ñi ñëpp. tax kenn ku ne ragal yàlla nga yóbbaale te ba nga demee xam nga ni yàlla rek kay dëgg waaw waaw ñu dem jamra tabaarkàlla mag moo xam ne moo mënoo woon a dox fii ak pharmacie jël jóob nga dog fukki kilomètre ak ñeent di tawaaf juróom-ñaari kilomètre ah ñetti yoon nga def ko loolu xam nga ni yàlla lum lay won la xam ni moom lu baax lu ne ta koy jaayante te ku jaral di nga jënd waaw man nag jaral na ma jënd naa yal na ma yàlla defal mu nangut aj gi nangut ak ñu nag ñëpp ñu ngi ko fa doon bokk di defal te bu nangoo yal na ko yàlla ful barkeel ko ci njaboot gi barkeel ko ci réew mi yëpp ak àdduna waaw maa ngi koy ñaan yàlla. waaw waaw bànneex la. Mm. xanaa xanaa jamra waa jamra ak mus ak mustalifa macha foofu moo koy foofa boo demee de sëñ maar si jaada bi nga yóbbu sax daanaka doo ca xaj ndax nit ci kaw nit nit ci kaw nit nit ci kaw nit booleeg lëndëm goo xam ne booleeg toroxlu goo xam ne loo loo loo lu mu métti métti sax doo ko yëg waaw for say xeer nag fas yéenee doxe foofa nag ba yëgg jamra waaw waaw da ngay dox ba gis ku daanu du mënati dara kon loolu dañuy jaayante rek. waaw te boo demee di nga sànni jamra te loolu ñetti yoon nga koy def waaw kon nga xam ne yàlla rek kay yàlla waaw yal nañ yàlla dolli daal fulal ñu tabarkeel ñu te xam ne daal màkk métti na métti goo xam ne nii képp ku fa dem ku ne te ni màkk daal neex na méttiwul la nga war a def defoo ko waaw yal nañ yàlla nangul nag tabarkeelal bi ñu jógee sallallahu alayhi wa sallam Euh, ba nga demee ba tiim Kaaba ga ko waxee sànq léegi mu wóor la dama euh, ba mu demee ba sa loxo teggi ci Kaaba gi. waaw boobu naka nga ko yuuxu damaa yuuxu. damaa yuuxu woo sama sët yi woo sama sët ndax ku ma ci masaana jox teraanga danga naa ma maam yàlla na nga dem Màkka. maam yàlla na nga laal kaaba ga waaw loolu lañ ma daan ñaanal ba ma demee nag ba teg ko ci sama sët yi laa njëkk a fàttaliku yuuxu ñu leen ñëw laal naa kaaba ga fóon naa kaaba ga yéen a ma ko doon ñaanal kon xam nga ni walaay doom neex na waaye sët dafa neex waaw man sama sët yi dama leen bëgg te yàlla tax ba ma demee kaaba ga walaay xalaat naa samay doom waaye sët yi laa xalaat yuuxu kay waaw ndax rek bëggeel guñ ma bëgg ak bëggeel gu ma leen bëgg waaye yàlla naa yàgg ak ñoom. yàgg ak seen i baay yàgg ak seen i yaay ci barke yonent bi ma jóge sallallahu alayhi wa sallam. soo amul looy dénk aussi tam ñi nga xamante ne damaguñ. Mm-hmm. ndax dafa am ay ay ponk. ay mm-hmm. sàrt. waaw waaw. du ñàkk loo xamante ni bi xamoo ko maîtriser woo. waaw ma yegg sa xam ci ay jafe-jafe. waaw soo amoon tey loo ñi nga xamante ni tey. Mm-hmm. man yàlla mën na def ñu seetaan élément bi. wala ni tam waaw waaw tey loo leen di gën a bàyyi loo xanaa ñu góorgóorlu ci seen jaamu yàlla. ñu góorgóorlu ci seen jaamu yalla wa te xam ne daal rek kay deug wa man de samam njàng soriwul waaye damaa taxaw oustaz ya di len laaj ñi di ma wax di ma dicté may deg waaw xamna ni ne jënd na kamiru alquran kum na ko jang ñepp di defé dem ba ca euh, barabu Seydina Muhammad ma tok ubbi sama kamir di jang sar yi nga xamni mom la tollol barkelo ko ca ja ba doyal naan ca sam-sam ma jël kaamil ba teg fa ñuy rancé kaamil ya kon sama kaamil la nga fa ndax bëgg gu bëgg alxuraan sëñ maar yal naa am sët bu mokkal alxuraan yal naa am sët bu wàcc alxuraan man bëgg alxuraan te yàlla tax yal na ma yàlla may sët bu mokkal alxuraan yal na ma yàlla may sët bu wàcc alxuraan ñaan naa ko ca Kaaba ga ñaan naa ko ca Medina yal na ma ko yàlla defal yaa bi ci barke yonent bi ma jóge waaw euh, bi wàccaay li bi yo, ndax am na ñoo xamante ni seen vol dafa dafa tar ndox maanaam yéen seen vol aller des grétour bi naka la demee ndax maanaam sant yàlla de sant yàlla tàddewul bi ñuy dem tàddewul bi ñuy ñëw waaye de dund naa fa jafe-jafe boo xam ne waa keroog moom moom yàlla rek moo ma wallu ak sama ñaani waajur nag ak samay waajur yu baax ndax dañoo jógee Musdalifa for xeer ba pare euh, laata ñoo for xeer waa euh, euh, oto bi ñu biis bi ñu diggoon paan bi mu paanee ñu fay kilim bi ah, oto bi tàng jër man maa ngi ci ginnaaw ma commencé di palpe ma daal di ni damay wàcc góor ñi ni ma doo wàcc ndax fii autoroute la wóorut léegi borom kaar bi daal di fay bi daal di ubbi buntu kanam bi may wàcc góor ñi ni ma doo wàcc waaye booba yëg naa ci sama yaram loo xam ne su ma wàccul woon rek damay xëm ma wàcc ba ca bunt ba. ma gis fa benn xale bu jigéen buy xam di kiris ma ne góor ñi ñëw leen kii ya ngi kiriis ñëw leen ñu daal di ñëw ñu daal di koy pant pante wàcce ko ma daal di fukki sama mbaxana mi ma soloon felt bi di ko ëpp jël ndox yi tuur ko di ko sotti ndox ci gémmañ gi muy naan ma di ko sotti di ko sotti man fàtte naa sama bopp ndax xale bu jigéen boobu waaw moroomu mbeen sugu mii rek la di ko ëpp di ko ëpp di ko ëpp góor ñi di ma ko ëpple ba mu xiqi bi mu xiqee ndeysaan mu daal di may kott tatafu ma rek di jooy di jooy yi kët yu metti ba ma ànd ak moom di jooy mu ni yaa booy sonn naa ma ni ko massa léegi nag fa lañ nekk ba appal nañ fa waxtu ci digg àll bi lëndëm goo xam ne ay lumière yi oto rek ngay gis waaw ma ne yàlla yal nag ñu wallu ci barke yaa rasulullaay ma ñu jóge yal nag ñu wallu màkka yal nag ñu wallu waaw daal di ñaan samay ñaan ñu toog tuuti rekk benn euh, pote police daal di ñëw daa dañuy gis xam ne ñëpp ma ni leen bu ñu wàccul du ñu xam lu ñu fi tëye te naar bi dem na léegi ñu daal di wàcce wàcce ni weex tàll foofu nag oto bi daal di ñëw rek laaj naar bi làkk ko naar bi wax ko rek mu daal di dem mais tuuti 4 x yi daal di ñëw bi ñu ñëwee daal di ñuy euh, utal oto oto bi daal di ñëw daal ñuy yeb bi ñuy dem bi ñuy dem yàlla def euh, ñi ci oto bi daal ni comme que fajar gaa ngi jot. du ñu du ñu dañuy continuer du ñu wàcc di fori xeer ma ne leen suñu wàcc fori xeer fu ñuy de nu ñuy def ndax fii fi lañ wala jullee timis jullee fi gée léegi nag bu ñu far fii xeer suñu wàccul jullee fi timis jullee fi eh, eh, eh, gée far fii xeer fu ñuy fara ji xeer ñu ne ñu dem ba jamra di wuti xeer ma ne leen man de demuma fii laay toog la yonent bi defoon laay def ndax su ma ko deful dañ ne ci sama xol ne ci duut waaw mat aalu kay léegi góor ñi ñii ni ñii nii ni nii xam nga mbooloo léegi ñu daal di ni génn jigéen rek du fi yàq kii bi ma daal di ñu sëcc taxaw daal di takk sama ndigg daal ni man de fii laay toog ba yàlla indi ma ku ma yóbbu waaye fii laay julee gée fii laay julee timis far samay xeer ba yeeg ngeen wàcc ma fi léegi nag euh, jit bi ñu doon yóbbu daal ni léegi kon d'accord ngeen ci li maire bi wax ñenn ñi ñenn jigéen ñi daal di ni waaw waaw nañ leen wàcc nañ leen wàcc ñu daal di wàcc julli fa gée julli fa timis far suñuy xeer def ci suñuy biteel daal di yëgaat ci oto bi bi ñu demee lu ci manqué te duma ko nangu waaw loolu dund naa ko fa jërëjëf yaay euh, waaw waaw waaw yooyu doy na yooyu doy na foofu. waaw. Ah, xanaa di santaat yàlla rek di julli ci Seydina Muhammad sang-sang ya ma jóge di sant samay waajur nag te xam ni léegi lépp ñoom la sama yaay. mang koy sante di ñaanal gu gu fan gu and ak wér gi yaram li lepp taal mo ñu ko liggéeyal yàlla na bi gëna doli ko ci barke yonent bi di sante sama bay ba tak ngey njoora mo ño am bay bu mat bay. motax ma sha allah ñu koy sante fa mu nekk gënal ko fi mu joge ci barke yonent bi di santaat yalla bu baax di julli sayidina Muhammad di sang di sante sama alaaji bi alaaji Momar Sougou diko ñaanal gudd fan gu and ak wér gi yaram mu gungé ñu ba ca kanam ta mu and ak wër di ñaanal sama njaboot nak. Mariam gey mi ma bokkal kër gi di sama rak ya ya ma nyana koy ñaanal moom yalla nañ dund ba njabootam di yobbu makka ñepp fekk ta tal ko yàqalu ko dara way moom it dara jappalé na sama njaboot biir jappalé na ma sama njaboot biti yalla nako yalla fay ak mbokk gi ñu bokk di ñaanal kumba yaali sama rak ji nga xamni demb ak bëkk demb moma ouflé moma botlé moma yirlé moo ma yiirle ba tey ma ngi sant ñepp nak di sant yàmba nga sama mag ji nga xam ne mooy sama taaw mooy suñu taaw di suñu yaay di suñu kalifa di suñu lépp bëgg yërëm ñu yiir ñu bëgg suñu njaboot yal nañ dund ba sama njaboot gi yóbbul ma ko màkka ci barke yonent bi loolu laay ñaan yal na ko yàlla dolli wér ba njaboot gi yóbbul ma ko màkka ci barke yonent bi moom laay ñaan yal na ko yàlla def yaa bi xéewal gu ni gàññ ak sutura yal na leen ko yàlla defal ba ñu yóbbul ma seen yaay mbaa nga màkka ci barke yonent bi ñëpp fekke waa di ñaanal bu baax sama doom ji góor ji ak i rakkam góor jigéen mag ndaw ñëpp maa ngi leen di ñaanal yal na yàlla barkeel leen yal na ñam ñu ñam ñu ñëpp xaj waaw ñëpp xaj ci ñoom waaw ñëpp xaj ci ñoom yal na leen ko yàlla defal lafal leen cat te tawal leen seytaane musal leen ci catakum ndog musal leen ci lépp luy loreeg bët bu ay laq leen fa loxoy yàqkat yeggut ñaanal naa ko sama njaboot gu góor gi ak jigéen gi ci barke yonent bi ma jóge sallallahu alayhi wa sallam waaw mbeen sugoon maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla may ay doom yu góor ak yu jigéen ci barke yonent bi ma jóge sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla bett bettum jàmm ñëpp fekke te tal ko mboole mu jullit maa ngi ko koy ñaanal di ñaanal samay goro nag di ko dale ci Nogoy Siise waaw Alimatu Kiné Faal maam sala dem sama goro yi yàqaluñ ma dara waaw yal na leen yàlla fay yalla nañ dund ba seeni gor di leen defal di leen teral ma fekke koog ñëpp nag ak mboolem julit waaw kontaan naa bég naa ci njaboot gu góor gi njaboot gi jigéen gi ju mag gi ndaw gi ñama jur ak ñama jaboote sama rakk yi sama doomu rakk yi sama mag yi sama doomi rakk yi doomi nday doomi baay xarit am di jàmm soppe dëkkandoo gi ñëpp gërëm naa leen sopp naa leen safoo naa leen faale naa leen yal nañ yalla yàlla jàppale jàppale mboolem dama sonu lima bëgg wax waxu yépp mënuma ko wax ñaan na yàlla nak fa ma demoon di gu fa yobbu yalla mako yalla fa xassal yalla defal ma fan mu guddu wa and ak wér ba ma mën uuf sama njabot gi gën leena gungé ba ca kanam tamu and ak wér ak tal ñaan na ko ñaanal ko sama njabot gu góor ak gu jigen gu mag ndaw li sama ya jur ak lu jaboté ak mboolem julit wa maa ngi koy maa ngi lay sant bu baax señ di la gërëm di la ñaanal fi may jéxalé sama kaddu dal julit buy bu necc aduna di sonn ngir sa njaboot di jaamu yàlla di liggéey te yàlla tax yàlla na nga fekk sa lépp njaboot yàlla bu la kenn séddaleen sa gannaaw yàlla na nga gunge sa njaboot ba ñu gën a ñeme ci barke yaa rasulullaay ba kenn ku ne sa njaboot woon la yaa rasulullaay sallallahu alayhi wa sallam ñaanal naa ko jullit yëpp daal di ko ñaanal samay mbokk yëpp ak samay am di jàmm ak samay xarit ak mboolem jullit jërëjëf ah jërëjëf sëñ Mar jërëjëf kontaan naa bég naa ah, waaw Serigne Kanit maa ngi koy ñaanal na ko fi yàlla indee ba tey mi ngi jàngal suñu xale yi waaye liifu alxuraan de ku ko def ci doom aadama mënatu laa fay yal na ko yàlla barkeel yàlla am jàngam ba yàlla defal ko ci lu kawe njottam kan ñaanal naa ko bu baax yal na ko yàlla fulta barkeel ko waaw sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ñaanal naa ñëpp yal na yàlla dolli ñu jàmm jërëjëf. Euh, mu nekkoon euh, sunu yaay euh, Adja Fama Guèye Eh, ñu bàyyiloo xel mbokk yi ci eh, wër dem saf eh, wër safa ak marwa ñu bàyyiloo xel mbokk yi ci li nekk ci coono ci aj mu doon coono yoo xamante ni bi coono yu takku la waaye ñu bàyyiloo xel mbokk yi ci maanaam pour nga dem aji maanaam xaalis bi ngay génnee pour def say say say say frais pour mën a dem aji ñu bàyyiloo xel loolu mbokk yi waaye ñu bàyyiloo xel mbokk yi won sa ginnaaw njaboot daf ay fan yu takku ci all bi ko xamanteni bi na am koñ bi nga nek sax am na mbedd keur yoo xamanteni mo so fa tek sa tank ndax gat euh, tank euh ndax gat tank ku dam ay ba ñew ak coono ya ca nek te aj nek juromelu ponk islam bi aj doon li nga xamanteni bi lu special la ci doomu euh mom lañ ni euh, ku aj gu yalla nangu euh, la koy fay moy Eh, jannatul iliyina maanaam yàlla defal la aljana ju gaaw yàlla na yàlla defal la ko kon ku yàlla dem nga def nga aji ba ñëw di jigéen buñ lay woo sa tur nañ ci yokk ajaratu wala ajaa dafa doon loo xamante ni farata la ñu koy koy loo xel ndax léegi mën nañ ni kenn xàmmeetul ku dem màkk ki dematul màkk ndax da gis koo xamante ni bi dem na màkk ba ñëw waaye buñ koy wañ ko xamee woon rek lañ koy wooye kon eh, sunu yaay ajaratu soxna Fama Gueye yàlla na kaala gi ràpp ak ko ñëpp waxee ñaan yi nga fa ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu waaye ñaan yi nga ñaan si jotaay bii itam yàlla ko yàlla nangu ñi nga ñaanal ñëpp yàlla yàlla def la nga lay ñaanal am tamu doon gën si ñoom di ñaanal bu baax suñu wajur wi ne ci kër gi waaw dëkkandoo yi ñoom maa ngi leen di gërëm di leen sant ñëpp ma bëgg koñ bi daal ñëpp ma bëgg samay mbokk ñëpp ma bëgg koñ bi ñëpp ma bëgg kenn desul ñëpp ñëw ñaanal naa ñëpp kontaante gi ma gën a am na ci kontaante ci bés bi muy bi ma geesoo gis sëñ Pape mu ñëw ngir sama jëmm ji jóge Kajoor ñëw moo ki rakkam ak am di jàmmam ak Khalifa Ndiaye ñoom ñëpp ñu ñëw tax sama jëmm ji kontaan naa bég naa sekk moore yal na ko yàlla defal barke yàlla fulal ko te barkeel ko may fan wu gudd wu ànd ak wér gi yaram ba baayam tegoon tànk yal na sut yal baayam sut baayam yombul de waaye sëñ Pape yal na raw baayam ci barke yonent bi yal nañ ko yàlla aaral yal nañ ko yàlla suturaal yal nañ ko yàlla yiiral yiir ko mbalaanum sutura làq ko fa loxoy yàqkat yeggul defal ko gudd fan lool gu ànd ak wér gu yaram yal na ko yàlla defal sekk moo ki rakkam ak waajuram yaa ñëpp ak mboolem jullit ak képp koo xam ne nii rek taalibe sëñ ma di ke sekk nga borom yàlla nee na taalibe canaba góor jigéen mag ndaw képp ku dib jullit salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu liñ daan wax day tungum sédé yaakaar naa ni kàddu yoyu nga wax ci serigne Pap euh, dëggal nga ko ci màkkatal mu karama gis nañ serigne mam Mor meng euh, bi muy def reportage ci chanaba TV suñu mbokk yoyu nga xamanteni bi ñoom itam liggéey bu am solo la def ci aju màkk gi waaye noonu lañ koy defee fi bi mu la talalé micro bok na ci nga tuddu sen tour wo len serigne Pap sek Muxtada sama dom ji sama serigne sama xarit sama lepp euh, nga tudd turam woowaat ko ma ne ko yalla ko mu def ñaarelu ajam yalla mën nako sañ nako ko ko yalla def ndax nenañ bëre bërëb fa gëm nañ yàlla dina ko dina ko fa yóbbu kon yàlla ko fa yàlla yóbbuwaat yaay booy kontaan nañ bu baax a baax a baax mu nekkoon sunu yaay ajaratu soxna Fama Gueye fii ci euh, euh, Euh, Kër Massar euh, unité 9 euh, nganale gi mu doon def foofu la ñuy wàccee suñu kàddu di ñaanalaat ñëpp waaye ni ko waxee sànq rek bàyyi xel ci tur bi ajaratu soxna Fama Gueye wala Adja soxna Fama Gueye bu ko defee rek nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax loolu dafa am lu def si yow mi nga xamante ni yow yaay wax loolu rawatina moom yal na yàlla nangul ko ajam yal yàlla def ku am yéene dem yal yàlla yóbbu la si jàmm ak salaam di ñaanalaat ñëpp di leen jox dig daje ndax gan yi nga ni màkk yaa ngi ñëw Euh, ndax euh, yaakaar naa ne suba ñu ngi war a dem fële nga xamante ni moom moo di gollam euh, mardi wala mercredi ñu ngi war a dem nga xamante ni moom moo di Louga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 bége ba aljana daara ji Shamsu TV la ni bége ba aljana ay waay di ko bége waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ni bége ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ni bége ba aljana di ko bége